سقط سواي بختام الباخي إلى انتهى لي بعمر باخي خيور ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جثبت ذلك فضل ربنا الباخي الولي في رمضان وربيع الأول ملكني المغني وللوهاب خاد المنى والدهر لا أهاب أغدا مع حني باع الله عني بلا إله إلا الله آيات رب جذبت لصدري ولسواي ذهبت الخطر إذا تلوت آية فر اللعين لخير ذاتي ويسوده المعين لي القرآن يطرد إلى غير جهاتي ما يكدر إلى يهب القرآن ما لم يهب لأحد بشرا بخير رهب تفضل الباغي علي بالكتاب مبشرا كليتي بلا عتاب كتابته للحرف والكرسي والله مع قلمه القدسي بابقة الله كل المرسل على جميع الثروات المرسل هداني الله بعمر باقي وحط باقيا خطاب الباقي محمد مده النبي المنتقى أقراني فثرت بشر جملة الأقران هويت ما هواه سابقون وجاءني قوم مرافقون مدحته وخاد أهلينا الخائد الخر المحجلين محمد مكرم مكرم ذو حرمة محترم محترم داومت هب من خال الأقران فثرت معفوثا مع الجيران محمد مها توجه الأداء الباخي ذو الأردين الطبع والطباخ حط بمدح مصطفى محمد خير رداء مع فضل الثمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا حبيب يا ذا الأمر يا فائق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا يا ما يا ففيهما عني اصرف الرزايا واصرف عذاب الناي عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حلا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن القتام عندك في الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة في الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة مسميني خنا قبل غوري لما يكي خنا أرز غكوري مسميني خنا أرز غكوري kay xanaa aras nga ko giire ba nga tekkee sa am mi may gi fa la ba wal jeg ba dootu noori ka joore ba nga tekkee sa am mi may gi fa jurbel ca la mbaaxaan ñalaabe ak ña ba nga finki ci réew mi góor ña nañ kaañ ma jiitoon ak i woore tekkile coori jokko daal di ko jiital fari la Ahmadu doore samba yaa ngaana gi awulawu amulam kenn fagey ba mbër ya di loore yow la yàllay damoo ca kaw ñi fi ile wax malaaka yëpp ko seere jërëjëf xaadimu rasuuli ku dul yow bu noon ba wan du fa waaw moom day santaan naa sëñ Tuubaa bu baax a day mbàkkee daa mel da fekk ci barab nur dari ni bool ci lool cir boo xam xam na bu baax a baax moom ko lool dogal Abdou Lahad di kenn ci man man daal di moo ko sant ci lépp ñu ànd ak seen sang bu baax bi nga xam ne dañuy sàkkoo ñëw ci barab bi te bëgg moom itam ci barab bi nga xam ne mën naa ne barab bi na tuuti dëkk jëmale fi mu doon seen sang nga xam ne daa mel bi nga ma waxoon ne ma parfois bi gën a cher ci barab bi lay yóbbu ci barabam bi soppi ko fi danaa la ñaanal Sëñ Tuubaa mu doon barab yoo xam ne barab yu bari man da sama pos bi sama jiite ci barab bi te daf ci dëkk bi ndax ku ñëw ku ñëw mu jox la kër barab mu wax ma ne Sëñ Tuubaa dana ko barkeel ba mu jur barab bi bi barab am na bis xam ne dana wax ma damaa bëgg nga jaay ma ñaari daal bu ci bu ci def ay daal dama bëgg mu barkeel li muy jar laa bëgg nga wax ma ko dama bëgg mu barkeel soxna Bali Muntaxa keroog daf maa wax ne ma dam maa jàppal sama bopp bi si ñëw fa Cheikh Modou Bachir daf ma ne fu barab bi toll xaw ma fan la toll danaa fa ñëw kon Mbàkke na nga xam ni julli yëpp ak lay sago waaye taalibe bi suñu jubaay yëpp ak lay sago rawatina ñi di ndaw di jóg di bëgg sëriñ bi di ci nam nag kon Mbàkke moo ngi lay seereel ni sa bokk yi nga fekk moom dañoo ànd ci addu démb ànd boo xam ni dañuy mottilante ci Sëriñ Tuubaa ñuy samay xarit ñoo xam ne jege ñee noonu lool moo ngi lay seereel sa bokk yi bopp yëpp nag ñi ciy fiit fane ndaw ñëpp ko ci nekk ba mu déggee barab ba da koy def bisu barab bu baax nga xam ne lu muy ne a wute noonu la ma ne ma la ko waxoon rek mu am ay tànk. mu ne ma gannaaw fi ñëw. seet waaye soññu soññu waale ku mel ne yow. ndax jàpp naa ne boo yemoon ci njàng ma si bi képp it. wala ci ceex gi képp it. lu ci ne mën na laa waaye lii day wane yoon liggéey moom bokk nañu formation yi daal yoon wi dafa mel xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey mooy ñetti wasi lu nga bokk di jàngal jàngal ko si bu ñëpp xam boo ko ubbi lu mel nii da wane yoon ndax gone gone yu ndaw ya xam ne jàng xasida baax na lool waaye du tee am métier. Mm. du mm. mm. tee am solo la. teewul teewul nag métier la. métier la waaye du tee am métier. teewut am métier. kenn ku ne mën nga koy def di ci liggéey nit ñi di ci liggéey Sëñ Tuubaa waaye bu mu la tee nag wuti leneen loo xam ne mën nga ca ànd daw. waaye wut dara. loolu koy wane. kon nag barab bii maa ngi koy ñaan. sama bopp yëpp. su ma xam ne barabu xasida la. barabu Nour Daara ñu. barabu Cheikh Moustapha la par exemple. nga defee ñëpp di fi ñëw di ne dafa jàpp ne jaar. dafa waaye di jënd rek nga jàpp ne jaar. ndax day dimbale koo xam ne. lu mu ko dimbalee day dellusiwaat ci daara ji. ak ci yoon bi. dëgg la dara du ci gën yoon. dëgg la xam nañ ko jàpp jaar. incha allah waaye soxna rek nag fiy jëndee. incha allah bëgg liggéey suñu tuwaar rek. incha allah nga bëri morom ñu mel nii. liggéey jërëjëf sant naa bu baax a baax. war na keroog bu ñu ko ubbee ma ma njëkk yónnee ne. moom njëkk ji ma jënd daa bu ma jox addiya la déedéet. damay jënd. wax ma bu ma waxaalee wax ma rek li muy jar ma jënd normal rek. ndax mat nañ dem jullee fajar ci barabu Sëñ bi. yëkkati moom ci boppam mu dem yëkkatil boppam. xaaruma sax. ci barabu Sëñ bi sotti ko fa. a incha allah. baas nden lu rëy lu ñor li ñu am tey sunu waa ji xanaa gabam la gongoore ma ne baas nañu moo tax. من يجي خناقة بملك زور وعلى والقيار صلاة وسلام في ما يجي مجزور وجعل قراني ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل له وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات هي قد آمالي واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر ذات حتي واجعل بجاه المصطفى وروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وقلد تبشير وتامينا لي أبدا مع الرضا آمنا